C'est bon, hein? Bonjour, hein? Tout d'abord, nous tenons à renouveler nos salutations les plus respectueuses au peuple sénégalais. C'est en ressentant de profonds regrets que nous, membres du groupement des jeunes reporters et techniciens du Sénégal, GJRTS, présentons nos excuses les plus profondes au ministre du Tourisme et des Loisirs, monsieur Mame Sa femme et à l'ensemble de sa famille pour la forte erreur commise par le site internet Allô Sénégal. Monsieur le ministre, nous sommes conscients et très éveillés pour reconnaître les dommages et dégâts que nos confrères ont commis dans votre famille. Ils ont eu tort, oui. Ils reconnaissent même leur faute qui ne relève même de l'éthique d'un bon journaliste monsieur le ministre monsieur Mame Mbaye Niang n'oubliez pas que vous étiez à l'époque le ministre de la jeunesse vous avez toujours œuvré pour le bon fonctionnement de la jeunesse à savoir comment trouver de l'emploi pour la jeunesse comment la jeunesse doit entreprendre avec un si beau parcours condamner des jeunes avec une classe d'âge de 20 à 29 ans qui n'ont fait qu'une erreur dans l'exercice de leur fonction ne serait pas une peine lourde pour vous-même qui êtes une référence pour la jeunesse. Monsieur le ministre, nous, le groupement des jeunes reporters et techniciens du Sénégal, GJRTS, apportons notre soutien, notre soutien à nos confrères de Allo Sénégal parce que nous savons très pertinemment qu'ils sont professionnels, mais condamnons avec fermeté l'erreur qu'ils ont commise. Cependant, nous vous présentons nos excuses les plus profondes. Monsieur le ministre Mambé et l'ensemble de votre membre de la famille loolu ci gàttal en wolof du ñu def lu dul indi kàddu jéggal comme ni ñu ko waxee au début nu la le groupement des jeunes reporters et technicien du Sénégal indi kàddu jéggal comme suñu président Beydi ni mu ko waxee muy kàddu boo xam ne ñoo ngi koy adressé directement à monsieur le ministre Mame Mbaye Niang muy ministre du tourisme et des loisirs muy kàddu boo xam ne nag du lenn lu dul rek xam nañ ne reconnaître nañ ne ñun ñoo tooñ mais ci tooñ bi di ay ndaw yoo xam ne yàgg nañu liggéey professionnellement te juumte fépp lay wat lay wadd ci bépp liggéeykat la war a daanu def nañu erreur muy xale yu ndaw yoo xam ne daanaka ci seen liggéeyukaay dañu defee erreur boobu Mame ñaa muy le ministre du tourisme et des loisirs mu teg leen daan mu porté leen plainte ci tuumaal yoo xam ne def nañ ko ko du ñu revenir au fait mais xam nañ ne kat que ñii nii di ndaw muy waa Allô Sénégal dañoo juum te reconnaître nañ ne dañoo juum comme président bi di nu mu ko waxee gis nañu affiche de partout ñu tas ko ci dëkk bi xamal kàddu njëgal bi nga xam ne apporté nañ ko au premier au ministre euh, de la euh, du tourisme et des loisirs monsieur Mame Mbaye muy kàddu du benn bu dul jéggalu di baalu àq foofu la ñuy jëm te di ko xamal ne kat que lii nii kat dina guléet dina mujj ci lenn li nga xam ne moom mi en personne def nañ ko ci kawam monsieur Mame Mbaye Niang le groupement des jeunes reporters et technicien du Sénégal ñoo ngi lay jéggalu di la baalu àq ndaw Allô Sénégal yi nga euh, porté plainte ba yàlla euh, def ba euh, la justice sénégalaise teg leen daan ba ñoom ba léegi ñoo ngi au parquet di jaabante xam naa président Malick dina ñëw ci dossier bi nu mu demee ak lépp loolu noonu lépp xam nañ ne ñun ñoo nekk ci erreur te lu ñu la mun a wax mooy. ñoo ngi jéggalu di la baalu àq te di la fàttali aussi tamit yow mii di premier ba nga nekkee woon ministre de la jeunesse li nga doon œuvrer tout le temps mooy liggéeyu ndaw nan la nit nan la ndaw di amee xëy ndaw yooyu noonu ci seen xëy la leen euh, euh, euh, tolof tolof fekk kon li ñu la mën a wax rek mooy ñoo ngi lay jéggalu di la baalu àq te nga xam ne aussi tamit yow vous avez été ministre de la jeunesse te am na loo service ci réew mi. kon appui boobu nga servi ci réew mi ngalawaay lii bu mu la ko yàqal na leen jéggal ay xale lañ ay ndaw lañu def nañu erreur prochainement dinañ xam fu ñuy teg seen tànk ndax liy jàngal ne leen lu bëri ñoo ngi leen jaajëfal. merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di présenté wu Mame Malick président groupement jeune reporter et technicien Sénégal. li waral sunu toogaay tey mooy jéggalu ak baalu ci ki nga xamante ne mooy le ministre Mame Mbaye Niang ministre du tourisme loisir li ko waral mooy sunu naataango yi nga xamante ne ñooy liggéeyee ci Allô senegal ndog ndog dal leen ci seen liggéey te li ñuy wax rek sunu borom daa bindee doomu aadama néew doole ak gaaw fàtte te nangu nan ni juum nan nangu nan ni noo tooñ ndax mënoon naa dal kenn ku ne ci ñun ndax liggéey bi moo ni mel bu yàlla wàccee nattu nag ci sa kaw danga koy nangu te nangu nan ko nangu nan ni nattu bi nattu ndogalu sunu borom la moo ko teg ci kaw sunu naataa naataango yooyu waaye ñun danoo jàppale tooñ gi du ñoom dong ñun ñëpp la moo waral tey man en tant que président ma jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog monde entier sukk suñuy bëti oom ci suuf jéggalu kook li la ministre Mame Mbaye ak fameem ngir ñu tin ñu ci te xam ne ay njabootam lan li tax ma ne ay njabootam lan mooy la ministre Mame Mbaye bokk na ci ñi jiite réew mi kon ay njabootam lan ay doomam lan ay jarbaatam lan njuumte nag mënta ñàkk waaye ku xam sunu naataango yooyu xam leen ci liggéey wu set ak wu sell beneen bi ci topp muy ay gone yu ndaw sama naataango bi wax na ko léegi ñu toll ci ñaar fukki at ba ñaar fukki at ak juróom-ñeent kon ay gone lan beneen ba ca des ñuy góor góorlu di créer ay emploi ndax ki jiitee bërëb ba gone gu ndaw la bu créer emploi yóbbu ci lu tolloog fukk ba fukk ak lu teg ci ay doomi aadama weer bu dee mu am lu mu lañ compal kon ñoom ñu ci ne per de faminga ñoom kenn ku ci ne soutien de famille nga depuis boobaak léegi seeni waajur seeni rakk seeni mag seeni mbokk famille yépp bu nu xëyee dañuy toogaanu ca buntu tribunal ba ñu ko njëkkee yoon ca buntu dig samedi ca ngoon defe naa ca lañ ca ca lañ fa ñëw dimanche ba altine talaata ñu xëy ñu yóbbu ñu déferment euh, procureur biñ demee fa lañ yendu ba ngoon ñu ñu ñu dem fanaane ji police centrale bi ñu xëyee ñu ñëwaat démb fa yenduwaat ba ngoon ñu dem fanaaniwaat police centrale tey bi ñu xëyee ñu ñëwaat bi ma xëyee dem naa fa waaye tey jotaguma leen a gis ndax lii moo tax aw moon wu dem gis giseeg ñoom di dalal xelu tamit famille mañaan loo ak ñamu àndal suñu borom dogal na ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam ñu ngi ci condition yu baax alhamdulilah ñu ngi lekk ñu ngi naan waaye li ñuy yóbbante askan wi mooy ñoom nee ndax du samay wax seeni wax nangu na ni danoo juum te ay gone lan moo tax nu defoon poste boobu je suis Allô Sénégal et je demande pardon à Mame Mbaye Niang ki defar post boobu mooy njiitu Allô Sénégal di Mañaan Lo moom moo ko defar moo ko publier te wax nañ ko fépp wax nañ fépp ne nangu nañ dañoo juum encore une fois man ci sama kàddu nga xam ne may njiitu groupement jeune reporter et technicien du euh, Sénégal ñooy àndandoo ñun presse bi yëpp di jéggaluwaat ci kanamu Mame Mbaye ak njabootam ak ci kanamu àdduna gépp ndax tooñ gi mën na ni du Mame Mbaye dong waaye àdduna gépp lan tooñ kon nu ngi ñaan li laa war a suulee mu jéggal ñu ndax su ma nee mu jéggal leen day mel ni ñun bokkuñu ci ñun ñoo ci jiitu ndax genn golo gudd na waaye loo ca laal boroom yëg ko ñooy ànd di jéggalu di baalu àq tey dalalaat xelu senegal yëpp mañaan ak ñamu àndal ñi ngi sant yàlla bu baax te gëm nañ dogal yi wax dëgg neex yàlla gëm nañ ni ay dogali yàlla la moo wàcc seen kaw te nangu nañ ko ndax démb bi ma leen gisee gis naa Mañaan gis naa lamin gis naa musa gis naa Daouda gis naa euh, soxna si Ndaas ñoom ñëpp gis naa leen waaye bi ñu njëkkee ñëw mañaan ak Lamine waaye ni yéen nu ngeen def ana gars yi mbaa ñëpp a ngi ci jàmm ma ne ko yéen la xew mu ne non non ñun yéen la ñuy xalaat ba xam yéen ngi ci jàmm ñun ñu ngi ci àdduna yëg na ñaan yi ñuy ñaanal yëg na baalu gi ñuy baalul mooy message bi nga xam ne ñoom mañaan bëggoon nañ koo jàllale te it nee na ñu ngi jéggalu àdduna bépp ndax ay ndaw lan te ndaw mooy juum te kiy defar mooy yàq seen wax jubluwuñu ci woon lii waaye li ma wax léegi rek bu ndogalee suñu borom ñëwee dañuy nangu ni ndogali suñu borom la loolu mooy kàddu yi nga xamante ni bëggoon naa ko ci yëkkati encore une fois euh, monsieur le ministre mambay Mbaye ñu ngi lay jéggalu ñoo nañ ba say tànk sukk suñuy bëtiwoom woom jéggalu la baalu àq te di la xamal ne ñii sax njaboot la ñoo say doom ya nga bàyyi ca kër ga ñoo yem ci yow jërë ngeen jëf ni ko monsieur le ministre waxee dafa am ñu ne seen ginnaaw waaw wala déet gëwuma ni am na ñu ne seen ginnaaw franchement parler ci ni ma xamee mañaan ak équipe parce que liggéey naa ak ñoom te ku dee ak sa bàmmeel Allô Sénégal yàlla dogal na ni mën naa ne am naa fa kàddu duñ def dara te woowu ñu ma laaj ma ba seen loko yi nga xam ne moom man yor bees bi ko mañaan di wut woo na ma ma bëgg ut ay locaux boo amee jot ñëwal cees ma dem cees mu yóbbu ma ba ci locaux yi wan ma ne ma fii laa jël bëgg fee liggéeyee maa ngi ut ay plateau loo may conseillé ma wax ko sama xalaat bi mu paree mu woo ma ko bëgg naa ñu démarrer bi sàngam ma wax ci sama xalaat waaye léegi nee naa la. wax naa ko keroog Allô Sénégal bi mu door ak léegi yàgg na yàggul kenn mësu leen a dégg ci dara ku leen mës a dégg ci dara na ma wax parce que man nee na amul luy xew ci presse bi ump ma wax dëgg neex yàlla yàlla dogal na lool mais kenn mësu leen a dégg dara lu dul liggéey ak am fulla am jom ku leen fekk ci terrain bi leen di respecté amul kenn koo xam ne nekk na aloo Sénégal nga daje dajeeg moom ci terrain te doo ko jox respect li ma wax léegi la ndogali suñu boroom la du leneen du kii moo tax ñu def ko wala kii moo tax ñu wax ko du kenn ndogali sunu boroom moo wàcc te dañ koy nangu loolu rek la du leneen. man je viens en tant que technicien en tant que bokk gi ma bokk ci biir waaw parce que lii du ma mës a du ma mës a du ma mës a wàcc ba fi may waxee dama teg affaire yi ñëw parce que man 16 heures laa ko jàppoon sama gars ñu xoolaat bu baax nañuy def gis nga ñii dañuy sacrifice dañuy sacrifier yéen ñëpp amul ku bokk ci nguur gi amul kuy jàppale ma Samba amul kuy jàppale ma Demba gis nga fulla yaa koy bayal sa bopp ba mu bay ba mu ma sëkk ak barke. amul ay damay kii xam naa ko dañuy wootante téléphone il faut pas ngi avoir avoir complex des leaders avant tout yow leader nga parce que yow yaa tax gars yi di feeñ loolu il faut mu dugg suñu bopp ba pare nag ñu doon benn bañ a naafiq loolu il faut mu am loolu suñ ko amee rek mu jeex may ñaan encore une fois le ministre Mame ñaa Niang ma koy ñaan amoon mon au nom de l' association bi nga xam ne fa laa bokk muy ANCPS mais sama jëmm laa ñëwee man en tant que technicien Pape Doudou ngir ñaan la xam nañu ne ñoom ñoo tooñ mais ñi ngi lay ñaan wax fa dëgg neex yàlla nga jéggal leen jéggal nag weesu ndax machine u état bu xasee ba déclenché lu ko arrêté yombul wax fii ba fajar taxut mu taxaw mais ay procédure la dinañ sol suñu dàll monsieur le ministre ñëw seet si la téléphone yi làmb nañu jotuñu comme ni ko Malick waxe dama bëgg yéen ñëpp ñu def benn bloc si ce n'est bu dee deux jours yoo xam ne bu leen dem ci benn point de presse kenn kenn ci réew mi ku yëngatu fii ci réew mi ngeen sol seen dàll yaa ngi dégg dem baalu ji physiquement mambay xam ni ah ah gars am na ñoo xamante ne caabi féetale leen ginnaaw ñoom ñëw nañu loolu il faut que ñu xam ko loolu nag solidarité moo koy def du kii ay demee nii déedéet solidarité moo koy def waaw loolu laa ne woon laay laa ci naa ci sànni sama kàddu ñoo ñun ñëpp ay ndaw lañu. encore une fois nañ bàyyi xel ci loolu bu kenn xeeb li muy def àdduna du fa gudd tànk gis nga ñii dañuy dem bañ la bala muy opposition di pouvoir. bu la yàlla dimbalee nga am benn as tuut noo mel sàmm ko waaw ñun ñëpp ay ndaw nañ du ñu ay du ñu ay mag ay ndaw lañu ñun ñëpp mais xëy na niveau yi ñoo bokkul man lu lépp lu ma lu ma lu may wax dama koy wax sama jeune frère yi waaw man duma xuloo duma xeex te fu ma leen fekk lu ma mën a am dinaa ko bokk ak ñoom man noonu la ma sunu borom bindee man ñëpp ma xam je parle comme ni ma mën a waxee loolu laay waxee encore une fois ñuy ñaanal suñu suñu suñu suñu frères yi euh, aloo Sénégal dégg naa sax ison sont de ils sont de Thiès. Mm-hmm. xam nga ñooñu man sama ay frères nañ man je de Thiès comprendre nga gars yi tamit ñu bàyyi xel ñu bañ ji sonn di bañ ji réer ci suñu ay audience mm-hmm. bu leen seen audience di nax de mm-hmm. ñi leen di suivre ñooy ñooy leaders yi ba pare li ngay def nga xam ko bu dara tax. ngay tuumaal doomu aadama loolu baaxut du ma sàmba du ma demba loolu naa ne woon may ñaan ma mbay ñaa encore une fois ñoo ngi lay sukk di jéggalu waaw kàddu gi nag Malick wax na lépp ñun dañuy ñëw rek rajouter wax bu wax bu posé nag la ñuy bëgg a wax ñu ngi lay ñaanaat encore une fois monsieur le ministre nga jéggal ñu metti na nag. dama koy natt ci sama yaay wala sama mag bu jigéen buñ ko ko waxoon. wala mun ñu natt ko ci ci ñun suñu ay parent waaw responsabilité bi nag dañ ko war a engagé bu mat sëkk lii buñ ci jógee ñu xool yan tànk la ñuy mën a doxee. à partir de demain wala après demain ngeen sol seen dàll. teg caméra yi fële ku woote ngeen ne ko jàllal na dañuy dem lijjant ji lii ak monsieur le ministre. ñëw toog. nga nangu ñu xas la waaw. parce que yaa tooñ. ba affaire bi sotti man loolu loolu laay loolu laay doxee affaire bi nag du xët-xët. parce que moom moo nekk ci ay dëggam. waaw fii tey ñu fi toppoon ci ay information fausse information ndax nit ki da nga ko xam rek mu jox la euh, kon ñun ñëpp jeex nañu. mais dafay am ay tolérance xëy na moom foofu la toll. tolooreewul mais ñun dañuy ñaan. encore une fois mu jéggal ñu. mu jéggal ñu jéggal. képp kuy technicien parce que dégg naa ne am na ci ay technicien xam jàpp nañ leen mm. te loolu rafetul xama ñu bëgg yi delluwaat ñoom itam seen liggéey jàpp seen jàmbur mm. waaw jaa ngeen jëf jaa jëf